mbooloo mi aleykum wa rahmatullah

na loo xamante ne mënu ma ko bañ a wax yow mi nga xamante ne dangaa tëlee yow mi nga xamante ne boo tiimee sa soxna doo ko mënal dara yow mi nga xamante ne boo nekkee sa soxna guddi da ngay jaaxle lool ba doo sax yàkkamti guddi daal di jot dama ne wool soxna aada mii nga xamante ne mooy seexu yàlla bi di gàllinkoor mu jox la ci produit yi nga xamante ne boo koy naan di yëg sa bopp loolu nag mooy neexal kër gi loolu mooy neexal sa digganteeg sa jabar produit yi amul benn effet secondaire nag ma ne ñamal rek boo ko ñamee billaahi nga xam ne soxna aada mooy gàllinkoor produit yaa ngi noonu képp képp koo xamante nag bëgg nga ci woowal gaaw soxna aada seexu yàlla bi ci ñaari numéro téléphone yi muy 77 216 39 69 wala 78 337 16 yoo ko woowee amul intermédiaire da nga jot directement su ko defee nga di koy wax say soxla mu daal di la koy lijjantil ci nu mën a gën a gaawee dama ne soxna aada seexu yàlla bi wax ko sa soxla mu lijjanti la ci nu mu gën a gaawee kii mooy soxna aada seexu yàlla bi dàllinkoor bi moo mën moo ëpp doole te moo gën a gaaw